karaama maam Seex Anta yaa gëm Bamba yaa taaro yaa tabe te gëm yonen ba yaa njëkk a fabu sambi ci seenu askan jébbal Sëriñ Tuuba niroo gëm yàlla gëm yonen ba am sëriñ ba moo tax gëm dogal ya atan yen ba gamub dogal te aw ndigal fu guraasi nii la sëriñ bi faraase sayeen bu rëy bi dis na mboolem Sénégal te tawato marjaal farajulul rajulu may yasbiru fii bali sabran jamilun Mbakke yaa wakiilo yaa woolu rabbul arsi maa la wooloo sabran jamilun Mbakke yaa wakiilo yaa woolu rabbul arsi maa la wooloo sabran jamilun yaa wakiilo أذان قد فجاء بجاي أبدل من لله خار لجاء حمدي لرب الكريم لا شريك له وزريا يوم نورا صاديا ملاء محمد صلوات طلعي في أباد علي في حزبه كل بك لا أرى إلى الذي أمان موائبه لجملة الخلق ما يطار من برا نجيت جلا ومن وكرماني تكريمها دين وكن لي من الخير بريئا رحمن واب لجميع الخلق رحمة من يوني أني سري من قرآن قراء قرامة مزافا عن كل ما صدات والترخ من خلقايا من جاء بداء يا مالي كالمكيا من جعل الأوادي إلهم جميعا ورا يا ديار رداء ما أنت ما خناهاس خلق قلب من درار بجاي أظليما لله خال جاء ما أنت ما خناهاس الغالب من درار بجاه أضل من لله خار لجاء maa ngi ziar sëñ bi di ziar ñëpp ñoom sëñ Aliou ñëpp ñu toog fii ndax nag e, dafa am xew-xew bu rëy bu ñuy pare di ko waajal muy le premier janvier nga xam ne chaque année bu fi sëñ bi ñëwee ba tey ñu ngi koy organiser mi ngi koy organiser teg lépp ci loxo yi sëñ Aliou sëñ ah, sëñ Moustapha ngi nii toog doomu sëñ Ndiaye ki ne yaanaa ngi nii toog xadee ngi nii toog macha allah ñoom Pam daama xale yi koñ bi nag jël seen yëpp teg ko ci loxoy Aliou ak sëñ bi ndax nag yéen a fi indi diine yéen a gën a saxal l'islam bi ci koñ bi dangeen ngeen fee dugg xale yi gëm diine ji. gëm lislam bi gëm sikkar si gëm diine gi loolu tee ko ndax lan yoonu sëñ Touba yoonu sa kër maam sëñ bi xale yi nag am ci seen pësteef am ci jom lool sa guddik àjjuma ñu ngi ci daara sëñ Aliou sëñ bi bi muy ñëw fii sëñ Aliou la fekk si mu nekk ci loxoom nga dalal ko dalal bu rafet nag bi ma koy xam say loxo laa ko xamee nga présenté ma ko mu doon loo xam ne réccuwuma ko mu doon sëñ bu baax nag doon ku baax yor jikkoy maamam yal na la yàlla jàppale yal li ngay mbébéb ci yoonu sëñ Touba yal na sëriñ Touba jàppale ci barke sa euh, jikkoy maam ñii ñaan nag la premier janvier bu kenn manqué ñi ngi woo jigéen ñi ñi ngi woo xale yu góor yi ñi ngi woo borom kër yi di woo kilifa yëpp macha allah bis bi sunu bis la le premier janvier fii lañ koy def diggante bi tali bi jëm géej tali koro bi macha allah ñu fas yéene cee ànd ak sëñ bi ak sëñ Aliou def ko màggal goo xamante ne nii cant yi rëy fii mooy sunu mbébét fi mu ne nii loolooy sunu xol mooy sunu mbébét te yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñu fekke ko tatal ko kenn bañ a manqué ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke sëñ sëñ bi yal na la yàlla defal jàmm yal na la yàlla defal jàmm yal na la yàlla bett xéewal gu saawaan baawaan gu ñu màggalee fii nit ku baax a ngi nii toog nit ku yaatoo ngi nii toog ku ko xool tey mu summeeku ànd xale yi di def eh, bale bale tali bi nga xam ne ku oyof a ngi nii bu la neexoon ak say tànk ne dañ la ko war a defal xale yi dañ la ko war a defal xale yi dañ la ko war a defal jigéen dañ la ko war defal da ne déedéet damay barkeelu tey danga meloon ne ku nekk ca fa ñuy bayee kii ba eh, eh, eh, xelkom tey mbirum xelkom rek la ma jox yal na la yàlla defal jaamu sëñ yal na la yàlla bàyyi si kanamu ñépp ñuy dund nag ba lay fekk daaru salaam màggal gi yal nañ dund ba nga koy màggalee daaru salaam ñu la fay fekk ci barke salaatul faat ñu ngi sa ginnaaw de ñu de ñu ngi sa ginnaaw xadi Kiné dama leen di delloo kàddu gi dama jëmba Medina lii duma ci doyal ci sëñ bi waaye bu guddi euh, mag gàmm ga ngay xam ne sa taalibe bi takku na ñoo ngi ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di santaat sunu borom bu baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne lu baax lu yaatu la lool sax ndax dégg ngeen ci kàddu yu bëri Serigne Saliou Mbacké mu baax ma di wax di yaatal ak baax ndax lu baax da laa yaatu ba nga xamante ni lépp loo xamante ni lu lu baax rek du xat du xat bi moo tax mu jubloo yaatal yaatal gi mooy euh, woote bis boo xamante ni da ko woote woote mu doon ab cant cant nag ku ne xam na ni amul lu ko gën a féete kaw te gis ñu tamit lu gën a féete kaw cant ndax cant rek ci la yàlla wax ni képp ku ko def ma dolli la loolu kon day firndeel ni cant mooy lépp la in sakartum la ajidannakum yàlla nee na doo leen santee rek dinaa leen dollil kon si xiyaas tamit gis nañ ni amul lu ko gën a féete kaw moo tax sëñ bi e, jug ngir yaatal loolu ana nan la ko yaatalee lenn képp la ko yaatalee mooy diine ndax moom la fekkoon maamam duñ ko woote ndax sëñ bi dafa wax ni sosuma dara dama fekkoon yoonu yonent bi ti alayhi wa sallam rëddoon rab ma ñëw di koy salaat loolu la sëñ bi tamit ñëwaat fii si géejawaay di ko yeesalaat ndax xam sëñ bi sof fi dara daa fekk yoon wi rek ñëw tegwaat ci tànk bi ngir bëgg a eggali fa fa maam eggoon te loolu nag mooy lu am solo wax naa ko nee naa ko ab sëriñ dafa am yu bëri yoo xamante ni nit ñuy ñëw si moom danga koy rayu ci moom ndax ab rayukaay la war a doon kon loolu it ñun ñuy ñëw ci moom di dem ci moom gis nañ ci moom loolu ndax soxna moom mu doon wax léegi firndeel na ko ndax du fekkee moom kat day woote ba pare ci biir woote bi moom mu njëkk mu njëkkunu ci waar wi maam takk ndigam njëkkunu si waar wi ña muy woo kam seen xel day daal dal sa loolu seetlu nañ ko si moom bu baax a baax baax a euh, dafa am ñaar yoo xamante ne dafa am solo si nit bi si njëkk mooy mooy oyof oyof dafa am solo ndax di nga tax euh, ñuy ñëw si ñuy ñëw si yow nga dem ba moom seen xol ndax yàlla moo bind doomu aadama noo xam ni boppam da koy jege lool sax da koy jege léegi ku mën a doon rek doo ko wanee doo ko wanee doo ko wanee dara doo ko wanee doo ko deful naw rek yow loo mën am moom mën na koo ñàkk wala moom mun na koo muñ moo tax sëñ bi biñ fi ñëwee donte sax ñun moom lañ yaakaar topp ci ginnaawam waaye teewul def noo nawloo nawloo bi mu ñu nawloo mooy waral saa wotee lu mel nii rek faa mu wooñu bis bi nag le premier janvier lay am daanaka essi na ci kaw nan lañ koy dundalee mooy jàng alxuraan ak xasida ñaar yooyu képp lañ koy dundalee jàng Alxuraan ak sa loolu mooy li nga xamante ni si la lépp nekk xéewal nag ñu ngi koy yaakaar di ko njort nax ku ne xam ne ni maamam maamam bàyyiwul dara ndax xadd xaada madduxu rasulullahi matlabati yi li feetan kal xel mi wa zexa bi sëñ bi tagg gi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yàlla joxee koom waaye yemul jox ko koom sax waaye fan yi denc koom yàlla da ko far jox ma waral lépp loo xamante ni eh, sumb nañ ko si yoonu murit fa muy jógee sax nit ñi duñ ko kon loolu xar baax la la waral nag mooy yàlla ci boppam daa foor sa yàlla kenn lu ko waay nit lebal mu fay la ko kon sañ bi bis baa ngi noonu yàlla nañu si yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam seen teseeg ci tawfeexu sëñ Tuubaa ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ñoo ngi laacé message kon bi nu mu ko leeralee waa daayira bi asxaabul janati nga xam ne sëñ bi dafa xool tur yi nga xamante ne sunu borom da koo dëppee àjjana mu moom mu ñëw dëppee ko ay ak ay njabootam kon waa asxaabul janati na ngeen xam ne sëñ bi mi ngi leen di woo bàyyiwul kenn si njiital ñoom Kéba ñoom sëñ Fallou ñoom ñëpp ah, sëñ Modou Mbacké sëñ Modou Mbacké tamit ñoo ngi koy bàyyiwaale xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ak sëñ Cheikhouna ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax di ñaan suñu ak jàmm ak wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu وزن العد هجو واسكال مبتخج والوجه ماء الغمام وهو أكمل الورى خلقا وقل عن سخرا والمثل خات لم يرى في صيامي أخمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود بشر ديامي إني أخاطب الجنة مصليا على رسول مسلما على الوصول إسبيه في كلمه